Ahmed Seyni Gueye xalifatulahi fil ardi ci mosquée de la divinité fa la ñu gisante ñoom ñaar gisante nañu journal bi nee bi ñu gisante nag maanaam sore wuñu woon ak mburoog soowa ndax saafonte nañ bu baax a baax askan wa nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëpp ci kontaane esprit de dépassement bi nga xam ne ñoom ñaar ñëpp daan nañu koy doxal journal bi nee na ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum wér gi yaram gi di Abdoulaye Diouf lii nag daan li nga xam ne mooy élection locale yi ñu génn jamono ci nag moom Abdoulaye Diouf Sarr journal ñoo ngi koy def ci diwaanu Ndakaaru moom Abdoulaye Diouf Sarr ma di président a kaay gi de la turbine xëy def ci bopp réewum Sénégal mission non accomplie ndax mboolem li nga xam ne ay digale woon Macky Sall dikkoo askanu Sénégal bëri ci loo xam ne phrase dali xëdeen maanaam Macky Sall defu dara a kaay gi di Sud Quotidien nee na yi nga xam ne moom la ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet élection la yoo xam ne maanaam du yomb benn yoon yéen kaay gi de Le Quotidien ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar ne nañu violence bi nga xam ne moo am ci ëtt politique bi Ousmane Sonko la yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibara naan ñu sudee am na benn parti politique boo xam ne war naa xoolaat boppam mooy PDS jamono ji PDS daat nay deltu ginnaaw loola te nag li nga xam ne moo ci war maanaam PDS dañoo war a def ndëpp yéen kaay gi di Walf Fadjri mooy wax du sunuy kàddu dañuy nettale yéen kaay gi di moom xëy di ñu nettale naan ñu nag Cheikh Bara mi nga xam ne député bokk gis-gis la woon daat nay gis na jamono ji waratuta ànd ak ki nga xam ne mooy Pape Diop daat nay ber li nga xam ne mooy ak langam moom député bi daat nay wax ne moom du ànd ak ñi nga xam ne Macky Sall day jël ay milliards di leen di jox ndax nee na avant élection yi am na ay opposants yoo xam ne Macky Sall jox na leen ñetti milliards ak yu fegg nee na tamit du ànd ak koo xam ne ñaari milliards lañ ko jox ba pare mu daal di jiite li nga xam ne mooy BP Sénégal yéen i kaay gi tamit nee na Serigne Assane Mbacké na nag fekk ji Ousmane Sonko yéen i kaay gi la ak exclusif xëy di ñu xibaar naan ñu journée de la femme daat nañu koy màggale ci week bi ca bokk jalube ci fief bu Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi ñu dénk wàllu finance journal bi de la sa nee na Yata Sow mi nga xam ne muy njiitul jigéen ñi nekk ci benn bokk yaakaar ci département bu Podor moom ak i ñooñaama ñoo wane seen taxawaay bu baax a baax démonstration de force daan nañuy wuy si nag woote bi nga xam ne Abdoulaye Daouda Diallo daan na koy woote ngir mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk benn bokk yaakaar ci département bu Podor ñëpp daal di joxante loxo te ñoom jigéen ñi nee nañu nag bu dee am na benn leader benn leadership boo xam ne moom la ñu xam ci département bi a kaay gi di

laas nee na jafe-jafe yi nga xam ne benn bokk yaakaar ak waa APR am nañu ko ci biir Fatick Macky Sall ma ngi koy lijjante yéen gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall nag bu ñu waxante dëgg li mu war a lijjante dëgg mooy jafe yi nga xam ne am na ci wàllum wér gi yaram ge ndax ñi nga xam ne ñooy waa ànd gësama ñoom fas yéene nañoo dem ci ab grève boo xam ne grève ñetti fan la àllarba ji nga xam ne moom la ñu dëgmalal la ñu koy commencé yéen a kaay gi duñu xibaar naan ñu scandale bi nga xam ne moo am Sonatel la lu jege benn milliard la ñu fa ngar daajoo journal bi nee am na ñaar ñoo xam ne teg nañu leen